donc imam mhm. mënuma daaneel mhm. te du ma fàttali ne mhm. bés bi ma la njëkkee gis tribunal la woon wax nga dëgg man dama nekk euh, ci kaso tribunal bi xamatuma lan la ñu defoon lan la ñu defaatoon ba ñu jàpp ñu wax nga yow boobu ngay wàcc tribunal di wàcc ci kaaf bi exactement nga ànd ak gàngoor ñu naan ñii ñëpp ay terroriste lañu bés boobu laa la njëkk seen ñu tase fa ci kaavu tribunal ah, te bés boobu mhm. bi ma la njëkkee gis mhm. lii ma njëkk seetlu waaw mooy danga ma sori woon mhm. yéen ñëpp ngeen sori ma wax nga dëgg mais li ma njëkk ràññee bés boobu waaw mooy am sa reetaan ju rafet ji bu jekk ji bu weex bi loolu laa njëkk gis ci yow bés boobu imaam ndaw bi ma doon dégg yëpp bandi buñ doon wax terroriste buñ buñ doon wax mooy borom ree ju neex ji. wallaay mooy borom signe bu rafet ji. Uh-huh. bés boobu laa di bés boobu laal di njëkk gis. wax nga dëgg sax bés boobu nag. man ma mm-hmm. commencé di enquête di leerlu. Mm-hmm. waaw ma xam ne kon loolu tamit. ay tuumal la woon yàlla def euh, li gën. Mm-hmm. yàlla wane dëgg. Euh, loolu yëpp day wane ne ah li la daal jamono jooju moo dal mhm. ñeneen ak ñeneen yow dañ ko jaarale ci terrorisme mhm. ñeneen ñu naan leen ay diffusion de fausses nouvelles ñeneen ñu naan leen ay fausse alerte au terrorisme dugg na fi génn na fi waaw donc di la masawu coono ci li nga dund liñ dund euh, liñ dund am mbégte nekk fii ak yow di la wax ne bi ma nekkee chambre huit mhm. quartier de haute sécurité bu camp pénal nga dëgg Euh, nekkoon naa fa ak ñenn ñoo xam ne. ndeysaan xëy na amuñu wërsëg bi nga am. ñoo ko bokkoon na foofu. Euh, tolloon nañ ci ay juróom wala wala wala fukk ñoo xam ne. ndeysaan ñoom itam tuumal boobu la ñu tegoon seen kaw. seen kaw yàlla yàlla voilà euh, féexal leen ci. amiin amiin te muy ngëneelu Sénégal. donc loolu yëpp li ma wax mm-hmm. nii yëpp moo tax kon. ñu mm-hmm. ñëw Kaolack. jërëjëf te ñu la seet si. wax nga dëgg. buñ fi jógee nag. 11h. Mm-hmm.